ngeen ñëw ñu nekk à deux jours d'une campagne élect de l'ouverture de la campagne malgré le rejet de la candidature de Karim Wade malgré l'affaire de la binationalité de de de de, de Rose Wardini malgré la frustration des recalés réew mi mu ngi woon ci jàmm les candidats étaient prêts à aller aux aux aux élections réew mu nekk ci jàmm ñu xëy nañu dañuy reporter l'élection am fu ñu ko teg. ñu fo ñi doon wax ne report élection bi mooy indi jàmm report élection bi daf ñu tàbbal euh, ci guuto bu kenn xamul aujourd'hui Sénégal ñu ngi laam-laamee suñu statut démocratique président Macky Sall ñu ngi koy enjoindre fu nekk na organiser élection yi na respecter mandat am na def nii na def na le euh, nit ñaa ngi manifester réew mi tàng na division am na désillusion am na moo tax ma ne la. ndax ndax li ngeen doon ragal avec avec l'élection. est-ce que li xew nii gënul pire ma ñëwaat ci li ma la wax. gis nga booy jël décision bu mu mën a doon ci état il faut dafay am risque bi décision bi taxawee nga xam ne ci dernière semaine bi aussi ci la lu kenn xalaatul mësuta xalaat ame mu mënoon ñoo yóbbu dans une crise institutionnelle. lépp y avait les rouages pour pour pour pour. Ouais, trouver ouais, les solutions waaw waaw loolu yow yaa ko xam. si xam nga danga maa invité nag il faut nga bàyyi ma ma wax nag may mun a da nga maa laaj. li xew yépp yoon prévoir na nan lañ koy saafara su fekkee yow xam nga ma bàyyi la nga wax. non mais dama lay relancer rek. waaw déet li xew yépp yoon prévoir na ma sax sama phrase nga nga dog ma dama ne la li xew ci semaine boobu kenn xamu ko maintenant dafa amoon risque décision boo jël ci état. nu mu néew néew néew boo moytuwut yaa ngi c'est-à-dire que yaa ngi jël décision boo xam ne mën naa faagaagal nit mën naa lor nit mën naa yàqal nit mën naa yàqali nit décision boo gis léegi dafa am risque yoo xam ne c'était inhérent à cette décision bokk na ci risque image président de la République bokk na ci risque sécurité sénégalais yi bokk na ci risque crise ñu nekk situation de crise léegi kii jël décision il a des éléments dafa yor éléments yu nga xam ne man amuma ko mu daal di ne dëgg la su ma jëlee bii décision daañu ma ŋàññ daañu ma xas daañu woote daañu defi communiqué international bi daañu ci wax waaye su ma ko deful sénégalais yi mën nañoo fal un français à la présidence de la république parce que ci candidat yi rëcc am na ci koo xam ne français la xëy na du benn du ñaar toog naa fi ak yow may mun a yow nga ne ma am na ci ñaar ñoo xam ne français lañ yaa ko wax léegi da nga bëgg nga yaakaar ne décision boobu ñu fal un français à la tête du Sénégal gënu la grave ñu reporter élection yi de quelques mois mais loolu c'est une question d'appréciation deuxièmement deuxièmement ñu bàyyi kuy proclamer élection yi ki nga xam ne moom moo war a wax ku gañe ak ku gañewul mu am ñaar ci ñoom ñoo xam ne dañuy bàyyi tuuma ci ñoom tuuma bu rëy rëy waxuma dañoo def de xalaatuma sax ne dañoo def. tuuma bu ñu créé de toute pièce. waaw ngi leer. waaw waaw Maymuna su fekkente ne tuuma bu ñu créé. de toute xaaral déedéet man man du ma waxee noonu su fekkente ne tuuma bu ñu créé la de toute pièce yi dinañ ko xam sénégalais yi kenn nelawuñu. te yàlla nelawul c'est tellement grave accusation yu ñu wax dafa grave ba nga xam ni mënuñu woon a dem élection te ñii àtte élection yi mu am tuuma yu toll noonu yu rëyee noonu muy ger yu tegu seen ndodd yi ba noppi ñu wax ne dañu leen di bàyyi ñu délibéré président de la république su defoon loolu mi ngi jël responsabilité bu mag ci déstabiliser Sénégal ci lu yàgg